والحمد لله صحنا رقاي ني لاي نيو دي نيو بوروم انترنت يي اي اف ام واو خمغا لولو موم يننتي بي صلى الله عليه وعلى وسلم يالا بيمكو خما يالا 124000 بروفيت لا يوني تا دو نييب لا يوني اكزامينا 313 اكزامينا لين 25 ba ci 5 ba ci ulul adm min ar rusul soko defé lolou dafa am jangale bu reuy bu ci nek moo yàlla du ko jug rek mu yónni la déedéet ñi muy yónni da leen di xool euh, loolu bref dama bëgg a wax ni rek tam yonent bi wax na ni laa baax baad gannaaw yonent bi sallallahu alayhi amul beneen yonent buy wàccaat mm-hmm. Isa mooy wàccaat Mahdi su ko defee yooyu ya ca aju yépp jàngale nan ko yooyu ñu war ci def taxaw seetlu mais pour dikk automatiquement ci ñi nga xam ni dañuy wootewu euh, ak nubuwa gis nga diine ji la ñu yàpp gisoo kenn ku jug ni maay xalif général tel tariqa dégg nga ko kenn ñemewu ko kon loolu dafay wane ni tariqa yépp am na ñu leen fi nekkal di ko sàmm kenn ñemewu ci mais diine ji nag lu neex waay mu ñëw incarné ko ci te du mujj fenn parce que léegi tam bu jëkk kenn ñemewu ko mais léegi soo seetloo comme presse bi bari na mën nga nekk sa ruq yor sa benn smartphone wala sa téléphone et cetera nga tas dara ci àddina bi moo tax yooyu saña am mais nag maa ngi leen di wax ni ñooñu ñëpp képp koo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na képp ku fenal yàlla ak yonenteem nee na bu yowmal xiyaamee sunu borom dina la defal ban boo xam ne danga ciy toog ci digg sawara te man sax dama jàpp ni nit ñi dañu dem ba boo tuddee sawara ñemewuñ ko tey koo kenn ñemewu ci wax loo xam ni loi bi daf koy tere parce que da jàpp ni dañ lay jàpp kon nag nanu bàyyiwaat xel ni yàlla moo moom àddina bi moo lal dëndam bi suufam ci muur ci asamaanam ci ñun ñépp kenn ku nekk di nga dee mu wéet ak yow ba mu mel ni yow dong la bindoon waaye itam soo ñëwee yowmal qiyaam dina atte te dina la punir loolu suñ ko gëmoon euh, bàyyi ci xel defe naa yu bari du am rawatina nag ngay lu nekk nit mën na ko def mu simple ba mu des fenal yàlla te fenal yàlla paasewul nga ni moo la yónni te yónniwu la man mii tey su ma ñëwoon ci benn barab ni président moo ma yónni te yónniwu ma suñu ko xamee daan yi ci nekk kenn xamul lu mu toll kon nag loolu dafay wane ni sagam nitu àddina moo mën lool waxuma ak ah yàlla subhanahu wa te lu toll ni ak nubuwa yàlla du yónni jigéen mm. ah, ci teg si yëpp gisoo ci fu mu yónnee jigéen li mag ñuy wax tam du yónni ku ñaaw du yónni ku ku ku kuy fen du yónni ku ku mënta jotal li muy wax du yónni koo xam ne dëppoowul ak ña muy waxal te du yëpp yónni tam ku jubadi mm. te yooyu yëpp soo ko saytoo ci ñiy woote woon yàlla leen yónni da ciy gis lu dul jeex mm. loolu nag dama jàpp ni diine ji rek la ñu yàpp waaye su fekkoon amul benn tariqa ci réew mi kenn sañ a jug ni maay xalifa bi wala man la borom tariqa bi ni woon maa ko donn wala nangam kon loolu ñi ngi ciy bàyyiloowaat xel di leen wax ni nit daal na bàyyi yàlla subhanahu wa taala xel bàyyi ni bisu penc dina ñëw bàyyi ni yàlla dina ko càmbar ci jëfam te yàlla dina ko fay lépp lu mu ci jëf mu ñaaw wala mu baax. ñu gis ne lu lu bari na ci Sénégal walum wooteem profit bi. business la wala société bi ñoo manqué repère. waaw parce que xam nga tey diine borom bi subhanahu wa taala daf ko jàngale. aw ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam sénégalais nag lii benn kilifa bu mag waxoon ni seen xel yi suuf su nangu la loo ci ji mu sax Pape Maodo si maa ngi koy ziar moo waxoon ni sénégalais yi seen xel yi suuf su nangu la loo ci ji mu sax gis nga. Euh, li yonent bi jàngale dañ ko war a jàng diine du lu ñëw nga gëm da gis ni que sax day dem ba loo wax ñu ni diw day weddi fekk na weddi bi ñàkk gëm moo war a jiitu du lu jug nga gëm ko li alquran jàngale sunna jàngale ko loolu képp kenn ci ñun dafa war a dem jàng ko xam ko gëm ko di ko doxal bu boobaa lu ci tàbbi di ko xam waaye diine joo xam ni yow dama judd rek fekk sama baay gëm sama yaay gëm na gëm naa jooju diine lu la ci tàbbalal doo ko mën a tey jii groupe boo dem wala societé boo dem walla mbooloo moo dem fexe nañ ba identifier seeni nit ba mënoo leen a euh, rax léegi nag diine noonu la ni koy identifier nag mooy gëm yàlla gëm yonent bi gëm bisu penti gëm dogal gëm euh, yi yàlla wax yépp te mu tënku ci alquran ak sunna loolu bu boobaa loo ci gisul di nga ko weddi yàlla moo ni ñu gëm ko moom wa wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan fii rek ngay gis koo xam ne mën na jël ay nit ci turu diine di leen sonnloo di leen toroxal di leen def loolu ñu ni diine tax mais ñeneen tam jàpp ni diine ji business daf ci nekk ñu ñëw bëgg ci dugg mais yooyu nag il faut arrêter diine ji yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ko jox mbooloom yonent yi fi dikkoon nag ñu war leen gëm waaye bi yonent bi dikkee moo tëj buntu nu mu woon yonent bi moo ko tëj amul kenn ci àddina kuy ñëw woote waat nu bu wa mu wér amul parce que la nabiyya ba'da la yonent bi sallallahu alayhi wa waxoon kon loolu moo wér jërëjëf soxna Roqee ñu ngi lay nuyu nuyu tam mbokk internet yépp di leen wax bu leen fàttee abonné wu ci IGFM point sn su ko defee incha allah ngeen di nu am tous les jeudis rek ci kàttanu yàlla ak maaxam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.